allo waaw Nabou Faye yaa ngi fan yow yow da ngaa fàtte ni Cisco mi ngi lay seet te bu la gisee da lay bul ngi woon ngay ñëw ci kër gi loo fi def faalewuma la yow ak Cisco li jëntuwuma leen kenn yow Xadi ba ma génne ci gàlle bi ba tey du message du appel xamoo ne ba xam maa ngi lekk wala maa ngi naan ah ok kon instant bi nii sa mariage dafa chevé instant bi yaa ngi impec eh may ma sama jàmm fii lépp weere na Cisco yëg na lépp amatul dara luñ fii nëbb dégg nga yow xam nga ni lii nii tasul sa lii ay détail la yow leer na la luy tas sa sëy maa ko yor te mu ngi sama loxo salaamaaleykum maaleykum salaam. Khady. maîtresse Ozy. ci loo nekk ça va yaa ci jàmm. ça va bien ça va sama yoon nga ciy laajte. Nabou yow bandi bi. Gainsman bi violeur bi. Nabou tu oses refaire surface yow kii yow la wala man damay jënd. eh da ngeen a am sens gis nga bébé Amina dama ko doon xar ñaar wala ñu ah? xar ñaar laa dégg de na bu boo nee dangay ngay xar Amina ñaar wax nga lu amul wax nga loo dul def na fay loo yaakaar bandi nga teg sa bopp xam naa wëyu déedéet. na bu bandi du mel ni yow xamoo sax fu ñuy bandi yow dangay ngay bandi bandi waaye dinaa la xamal leen gis nga maak yow ci kër gi du yomb loolu daa bëgg nga dugal ko si biir nopp bi du yomb de. eh dégguma la de dañu ne man ak yow ci kër gi wala yow osé la nga fàtte ne simple jàngalekat nga. maîtresse Ousseyn xoolal kii ñëwaatul de man rek la seet woon te bëgguma sis koo yëg. yow mënoo maa dimbali ko sa tàppet gi jóge woo ci bataay yow kii mooy kan kii mooy kan ngay laajte eh, xeeb nga xal mu lakk sa tool déggoo ma de gis nga man mii nga xeeb xeeb nga nag sa musiba te loolu ci kanam dañ ci xam dara gis nga dama bëgg sama yoon nga puus ko li nga séenoo say fan lay lem nabu dañ la ne yow lay yow yaay yàlla loolu lañ la wax ki la ko wax nag nax na la gis nga samay fan nekkul ci sa loxo te du ci mës a nekk sama bii ci loxo yàlla suñu boroom rekk laa ko teg faalewuma la dunduma la resuma la

saa ñaaree xaritu jëkkëram. waaw Ouzin bàyyi nga ñu nag de. billaay yow. <laughs> waaw baax na. gëj naa fi moom. na fee bàyyi nag. voyage bi rek dawoo kat dikk rek man xam nga mais yaa ngi nii di joggu ma. yaa gën a belli nag. dégg lool waaw wuy loolu. <laughs> waaye yow na bu fay kañ la ñëwaat du ma fekk ko ci buntu kër gi muy wax ak Xadi. <laughs> numéro na bu fay wala numéro na fi mbay. na fi mbay la da ngaa jiw. fi mbay ma ah réew réer ci dëkk bi. neen dina fi may feeñ nag nee nañ gis nañ ko Cambérène ñii nee nañ gis nañ ko Patte d'Oie ñii nee gis nañ ko Yoff lii am naa lu ma naqari nit koo xamante ne gaañu na yaa ñu tourné bi rek di ko wax nañ ko bàyyi mu metti na daal waaye nag xaw ma rimooru na fi mbay xaw ma waaye fantamu na fi mbay moom xam naa ne moo ñëwaat. mënut a noppalu ndax njabootam gi dañoo sonn nag ba mu dëddoo ba tey hmm. façon méttital bu ne maltraitance bu nekk hmm. xadi teg na ko njabootu na fi mbay hmm. loolu moo tax mënta reposer en paix fantomam nag lañ gis waaye xadi moo yee gis nga gént gi mu fi géntoon gént mel waaw mu ne na fi mbay dafa ñëwaat gis na ko ñépp ne xadi dof na xam naa gént googu mau ke bàyyeegul moo ko ke ba batai du la na ma sax da di gis nii. loolu la ndax nit nag bu chef ma da di toroxal. <laughs> dama koy gis mooy fu mu dina ne gis na na fi mbay. dina la dee mais wax ma loolu nga ne kan nga gis ci buntu kër gi. dañ ci ñëwaat. ma dama di. ma la na bu ngi ci buntu kër gi xadi di waxtaan <laughs> moo mu jaaxal ma. kañ la na bu fay ñëw ma koy laaj mu am audace su toll ni di ma menacé nee na man lay menacé moo moox de da day leb samay fan. Nabou Faye mi ñuy wër ci digg dëkk bi Cisco di ko wër Nabou moo am osé pour taxaw ci buntu kër gi moo xadi. Cisco la Nabou Faye di wër mu ngi fii. mu ngi fii. Nabou Nabou ngi fii loolu man maa koy lijjanti. yow ma may ma ma ñëw. foo jëm. may ma osé ma ñëw comme Cisco bu ñu ko lijjanti ñii bàyyi ma woon la sama jikkooy bandi bi. taxawal yow laa doon seet yow. soit yow yabaate nga de te ku effronté nga nag na njëkk tey na mujj tey may dox nga may kale. soo bëggee koo kale wala koy woo naan kaan ee eh, eh, mu lay wuy da ngay dem nga wuti doom yaa ngi may dégg. xam nga lan laa lay xamal yow baam nga heure bu ma neex laa lay taxawloo xam nga la laa lay xamal dama bëgg xam na bu fay lan la doon wut ci buntu kër gi may wax yow nga ne danga koy compagner noonu. kan moo la ko duul du maîtresse Ousseyn moo la ko duul demal nga demal mu wax la na bu fay la la fi doon wut. yow te xam nga Nabou Faye <laughs> wala Nabou Faye xam na kan mooy du saw te xam nga lan laa leen di xamal li ngeen di manigage si kër gi laa bëgg a xam lan la laa la wax. doo xam tous yow merde à la fin. Ah. yaa ngi bëgg a soof nit ñi merde yow. xam waay yow merde. yow xamoo ma sax dangay jàng bandi di nga xam maa la gën a muy aller may ma rek ma ñëw. c'est

affaire manque de respect wala yow dañ la changé léegi. Cisco ma sax nga pare Cisco yow yaa ngi nelaw de dama bëgg nga yeewu Cisco. maa ngi nelaw ci lan. kër gi mi ngi toj ndax Nabou Faye mi ngay wër mu ngi sa kër gi. ban Nabou Faye. <laughs> attends arrêtel Nabou Faye sama biir kër Nabou Faye xanaa dafa dof. <laughs> gis nga Osé moo ma ko wax te Osé di waxantu. na bu fay ñëw na sa kër gi ba dem te yow yëgoo ci dara. non mais attends Nabou Faye la lay def sama kër moom moo ne Nabou Faye dafa ñëwoon sama kër boobu ana Khady. parce que ñoom ñaar ñoo ko ànd daf ko complot kay. <laughs> Khady ak na Faye fay mais attends yow na sa xol seet dinaa régler loolu noonu. ko xanaa di ñu dimbali ngir yàlla jël sa responsabilité bi yoon xanaa xanaa di ñu ko saraxee de. dinaa régler problème bi yow dama rek. laa lay wax. gis nga situation kër gi boo ko réglé wul dinaa génn kër gi abal la te dootoo ma teg bët leer na ci sa bopp bi waaw kay dama sonn waay. man fa yabee mu yab boobu sax quoi. xadi xadi. xadi Nabou Faye daf fi ñëwoon. waaw daf fi ñëwoon. lan dem na. non mais attends yow Nabou Faye vu def ci biir kër gi yëpp. nan la mënee ñëw dugg ci kër gi doomu ko teel njattal ma ko ba ma ñëw. danga maa fay pour ma teel a Nabou Faye wala Nabou Faye man dama kaa ëpp doole ma koy téye et yow sax boo jàppee Nabou Faye loo koy def. yow loolu moom mooy sa wax. waaw. <laughs> non mais c'est ay vrai complice ngeen Nabou lépp lu mu def suba ba ngoon yow yaa ko si jàppale te Nabou Faye suñ ko jàppee yow dañ la war a jàppale ne leen si kaso bi. dans tes rêves. parce que fu ma tase ak moom non dama koy rey dem tëdd si kaso bi. Siteu xoolal li ngay wax bari na boo ko jàppee balaa nga koo rey wala boo ko reyee ba pare andil ma sama chaîne tànk bi ma ko abaloon bi nekk si tànk gauche am bi maa ko moom gàndaaleel ma ko dégg nga bari nga wax torop. damay gént wala eh ñoo ngi dem supermarché bi soit donc Papa Moussa ñu may xaar suuf dégg nga. ana bébé Mohamed. Papa Moussa moo ko yore. waaw ah, d'accord wuy di génn nga tëj yóbbu naa sama caabi. ok ah, sa jëkkër gi te xel na de. tijji buntu yëpp mu ne ŋàpp nii. gis ci suuf. ah waaye lii da lii kat daa wóor. mu ni buntu yi ne ŋàpp nii. waaw c'est ce que moom mu mënee li xaaral ma woo waaw jar na téléphone kay. waa Cisco yow e ya da ngaa ñëw tëj bunt yi bàyyi ko nii mu ne yàmbalam. gaaw tuuti. lan mooy ñëwaguma. mu ne. man de damaa ñëw fekk bunt yëpp di ah kon de sàcc ñëw na fi. kon roñ nan leen. yaa ngi ñëw d'accord. roñ nan leen. nee na moom fi. ji ŋàpp. li mbaa na yaay. xool leen roñ nan la. ah demal xool loolu ma demal yow lii ci sa ci sa saal la ah juumo demal xool lii wooy ay du man way waxuma kay ah wuy ji xadima ma ah, mbay xanaa bu ngeen amee gan yéen war ko mën a Moana lan moo xew Moana waxal ak man s'il te plaît. fii. Moana wuy ma. Mm. waxal ak man lan la. Nafi Mbaye. Nafi mbay lan. mu ngi fii ci salle bi toog. maa ànd wuy ma arrêté leen seen yii. yéen baat seen gént yooyu noonu ngeen nekk ngeen nekkaat ba tey. wala man bi ma génnee yéen da ngeen tëddoon di nelaw ba gént. Cisco fii kenn nelawu fi kenn géntu fi samay gët ñoo ma may. Nafi Mbaye ci saal bi naan naan yaa aana xadi samay bëtama may maa ko gis Nafi mbay man dama daw kër Khoudia Diouf gii laa dawoon làqatu ji fa maa ko gis mu ngi ci saal bi toog maa ko gis waaw man bu ma ñëwee man maa xëpp kii ndox ma ne la kër kër Khoudia laa daw làqatu ji mais li nga wax nii nan la mën a xadi xadi eh Nafi Mbaye da nga ko fi gis yow mhm. ci saal bi loolu nu mu mënee nekk. mi ngi fii ci. non non ngi fii. ana gis nga ko Cisco ana mu ngi gis nga ko. lii moom ay bindu Nafi Mbaye la. kan lii. ah aywa ana mbay yàqu na waay ana jeexal na aywa ana dee na waay aywa damay ñibbi ndu dëkk jarul lii aywaay nga ne nga ne ay lanam la. ay bindu Nafi Mbaye la lii moom. aywa yàqu naa waay. lii ah, ah ana day ñibbi ndu awai da ban yi biwaye awai da jarulli jarulli hamburgerin na gareng su jarulli Hmm. Hmm. papa gis nga xam la benggak bëgg nga xam mhm. dama bëgg nga arrêté sa jeu yi yaa ngi nga ne da nga def sa mise en scène ba pare bind sa lettre teg ko ci salon bi fii naan da tiitalaate c'est quoi ces yow koy xanaa booy venger wu sax wala ngay fayantoo mais nga yamale ko si sa tante ngay bind ay lettre di ko teg fii nii pourquoi faire <laughs> papa yow moom lan moo la yow papa yow yaa may yee tey suba si ñu ànd dem man ak sama tante Souada ak bébé Mouhamed nga tëj buntu kër gi léegi lan laa mën a léegi di leen tiital ah tamit léegi yaa ngi naax de. tu as raison mais juste que man lii ça m'étonne trop. Hmm. yow tu sais bel et bien que ni man du ma bindee nii yow xam nga bu baax lii bindoon na fi mbay la parce que moom rek mooy bindee def ay points yu bëri yi yow xam nga loolu baax.

lan la exactement lan mooy sa problème Cisco si soxo Cissokho si soxo gis nga bis sama deewu yaay ji bis boo si tekkee lu tolloog zéro virgule cinq pour cent di ko diggaale ak man te boobaa dootoo amati doom